màggalu Tuuba nanu ko waajal. Sëriñ Bamba woote. ku màggali Tuuba dinga am ngërëm waay xaadim yaa ne. màggal Tuuba nanu ko waajal. Sëriñ Bamba woote. ku màggali Tuuba dinga jàng alxuraan durus xasaayid yee Sëriñ Bamba woote séddale berndey amul xëj ak seen waay xaadim yaa fi màggal Tuuba nanu ko waajal Sëriñ Bamba woote ku màggali Tuuba dinga am ngërëm xaadim yaa fin jàng alxuraan durus woote sit dale berndey amul xëej seen waay xaadim yaa fin màggal Tuuba nanu ko waajal sëriñ Bamba woote bu màggali Tuuba dinga am ngërëm xaadim yaa fi ne ganaar bëggaleem la ci digle woon Sëriñ Bamba woote pom ak banaana orange mandarine xaadim yaa ne màggal Tuuba nanu ko Bamba woote ku màggali Tuuba di am ngërëm xaadim yaa fi ne ganaar bëggaleem la ci digle woo sëñ Bamba woote pom ak banaana orange mandareen xaadim yaa fi ne màggal Tuuba nanu ko waajal sëriñ Bamba woote ku màggali Tuuba di nga am ngërëm xaadim yaa fi ne ataaya kafe gu ànd ak gerte caaf sëñ Bamba woote keeg ak beñe waaw waaw croissant e xaadim yaa fi dëgg-dëgg màggal Tuuba nanu ko waajal sëriñ Bamba woote ku màggali Tuuba di nga am ngërëm xaadim yaa kafe gu ànd ak gerte caaf Sëriñ Bamba woote keeg ak beñe waaw waaw ee xaadim yaa fi ne dëgg màggal Tuuba nanu ko waajal Sëriñ Bamba woote ku màggali Tuuba di am ngërëm xaadim yaa fi ne màggal ba ca suba ñu togg damma daay ya Sëñ Bamba woote ñee ca mbaxal yaa suppu yeeli nag yaa xaadim yaa fi dëgg-dëgg màggal Tuuba nanu ko waajal Sëriñ Bamba woote bu màggali Tuuba di am ngërëm xaadim yaa fi ne màggal ga ca suba ñu togg dama daaya sëriñ bamba woote ñee cambaxal yaa ñee supp yeeli nag yaa xaadim yaa fi ne dëgg màggal tuuba nanu ko waajal sëriñ bamba woote ku màggali tuuba di nga am ngërëm